buñ nee nag koorug farata moom saa yoo ko doogee rek fay ga mënta ñàkk warees naa xam nag àtteb koorug naafila maanaam koor goo xam na nga koo coobarewu rek waaye warut mel na jamono yi ku nekk di woor juróom benni fan yi di gunge dog ca saye boo takk ne saa yu dogee koor goo xam ne du farata te fàtte waral ko wala ngànt waral ko rek dara du ko ca war fay waru ko ca te du ci am daray bàkkaar dañ koy bindal sax tuyaaba ja mel ni àggale woon na koor ga su ca dogee na ci kaw ngànt ni ki mu war ba yàgg di gungi rek far si buru mënta ñàkk a dog kon day jàll rek lekk ak naan dara waru ko ca su fekkee nag dafa lekk mbaa mu naan ci kaw fàtte dong day daal di bàyyi lekk gaag naan ga ba mu fàttalikoo ni mu ngi ci koor rek na daal di bàyyi lam doon def te muy luy dog koor daal di jàllale kooram koor ga baax na jërta fay jërta baamu te daañu ko bindal tuyaaba ja incha allah mu des nag muy woor koor goo xam ne naafila la moo ko coobarewu dog ca te tey ko dana ko wax ca may wane ci kanam wa shakki ak sikki sàkka fil fajri ci fenku fajar awil xoroo bi wala soga ka sabaxi nit ki rëcc ga min maa ca la nga xam ne istaaka soccoo na ko aw ta mad mada wala mu galax ndiku ko maanaam bu doon soccu socc bu tooy far mu ci ndox mi mu rëcc jàll koor ga dog na bu doon jàpp di galax ndiku mbaa muy sarax ndiku far mu rëcc jàll it koor ga dog na waaye nag fay rekk moo cay war alamaan du ca war wa shakki ak sikki sàkka fil fajri ci fenkuk fajar awil xoroo bi wala soga bu dee sikki sàkka fajar fenk na wala fenkut maanaam ndax xëdd wees na wala weesut kon na bàyyi bañ a xëdd bañ a def dara lu yàq koor su dëgëree bopp nag lekk mbaa mu naan mbaa mu def dara lu yàq koor bu ci amaatul wóor ne booba fajar fenk gutoon faaw mu war a fay bis booba duñ ko ci alamaan waaye faaw mu fay ko gannaaw ba nag su ci amee lu ko wóor ne booba fekkutoon fajar fenk kon loolu doy na du aajowoo mu di ko fay suuf jant bi ba tey noonu la bu dee sikki sàkk jant bi sono na bàyyi ba wóor ko ne sona mu door a dog bu dëgëree bopp nag dog ci kaw sikki sàkka bu ci amaatul lu ko wóor rek faaw mu war a fay bis booba bu ci amaatee lu ko wóor nag ne booba jant bi soxoon na loola doy na awib bu tilaaxil balgami wala wann xaaxtandiku wa almaxloo bi wadiwuñu not ni mu waxee moom mi taalif xaaxtandiku moo xam da bàyyi ko ci dënn ba moo xam day ñandax it bàyyi ko ci bakkan yi ñëw ba ci làmmiñ bi su ko mënee yàbbi yàbbi wu ko tey ko daldi koy wan koor ga yàqu na dana war a fay bis boobu waaye jàppal li gën a wóor xaaxtandiku moo xam daa bàyyi ko ci dënn ba moo xam day ñandax it bàyyi ko ci bakkan ba mbaa lor yi nga xam ne mooy dajaloo ci gémmiñ gi yooyu yëpp dafa neexuta wattandiku mu tey ko ak mu rëcc ko rekk wann ko te teyu ko ñooyamoo du yàq dara ca koor ga jooju wax lañu sukkandikoo aw aamidan wala muy aju tey fitran doog xurrima gog araamaleef na ko fi nafli ci kooru naafila walaw uqsima ak doonte giiñeefoo na ak ci moom bit talaaxi ci tasim ñett day wax nag koor goo xam ne yaa ko coobarewu waru la woon nga dugg ci ba noppi nag dog ko te tey ko luy àtte ba luy àtte ba mooy ndegam dog ga yaa ko tey te amoon ngant def nga lu araam ba noppi faaw nga war koo fay saye boo jàll lekk ak naan ndax moom faaw da nga koy fay ndax moom warutoon ci yow waaye boo ci xasee dugg day soppiku lu war ci yow mu ne sax bu fekkoon ne dafa am ku la wax ne la sa koor gi boo ko dugut sama soxna si fase na ñetti pase koyit du tax nga saña dog sa koor da ngay wéy rek ci sa koor bu jant bi soyee nag moom soxnaam daal di fase ñetti fase ndax moo ko waxoon te la mu waxoon tebbiku maanaam moo ko waatoon rek te la mu waatoon tebbiku soo bëggee nag soxnaam bañ a fase ba tax nga dagg sa koor nga dog sa koor def nga lu araam yenn ca bàkkaar te du tee nga war a fay bis boobu moom nag su boobaa soxnaam du fase ndax dane woon soo dugut sa koor gi sama soxna fase na ñetti yoon waaye dog nga sa koor gi kon soxnaam moom du fase dañuy wax nag ne boo waree kooru naafila maanaam koor goo xam ne yaa ko coobarewu sa ndey mbaa sa baay dogu ci yow ne faaw nga dog sa koor gi ndax ñëwante gum la ñëwante ci saxoo koor moo xam boole na ca waat moo xam boolewu ca waat danga war a dog sa koor ga topp la mu bëgg moom sa waajur woowee moo xam yaay ja moo xam baay baa sëriñ bi nga xam ne itam moo lay tërbiyee ci yoonu yàlla bu la gisee nga woor mu dogu ci yow neel da ngay dog saye boo topp ko ca loola dog ndax daa gis ne am na leneen loo xam ne moo la gën a mën a dimbali ci sa yoonu yàlla wi nga aw te boo wéyee ci koor gi loola doo ko mën kon moom it da nga koy topp ca lam la digal daldi dog wala qada deetug fay fii xaalibin ci aju not min madiin ci madiw aw xay in wala wàccu aw min balgamin wala ci aw xaaxtandiku aw maniyin wala maniyu day wax yi nga xam ne di yàq koor ga fay du ca war daa njëkk wax mas yu mu génn ci yow ci loo xam ne sabab lu woo ko mook man yi ñoo bokk àtte ci loolu waxoon nañ léegi ne su fekkee ne bu xelam demee ci mbirum jigéen rek masiyu mbaa man yu génn ci moom mbaa bu ne jàkk rek masiyu mbaa man yu génn ci moom loola du yàq dara ca koor ga fay du ca war dara du ca war boole woon nañ ca bu génte rek man yu génn ba tey dara du ca war koor ga baax na dara sikku ca wàcc itam moom dañ koy teqale wàcc moo xam ne moom moo ko tey ni ki mu dugal baaraamam ci gimiñam di wax luuju daldi wàcc waxoon nañ ne koor ga yàqu na faaw mu fay mu toll nag ci wàcc moo xam ne moom tëyu ko te wënaatu ca dara ni ki mu sibru rek daldi wàccu bu fekkee wonu ca dara rek gannaaw ba wàcc ma ñëwee ba ci gémmiñ gi di nga wënul dara rek koor ga dara sikku ca su amee lum ci wan nag ci kaw da koo rëcc mbaa daa juum fàtte woon ci koor la nekk fay ga dana ko ca war dana waxoon nag ne su wàcc mi ñëwee ba ci gémmiñ ga mu mën koo yàbbi mu tey ko nag wannaat ko day mel ne kon da koo tey lekk day boole fay ak kafaara boole ca xaaxtandiku mii nag mu tudd fii da cee jublu su wannoon xaaxtandiku ci kaw da koo rëcc waaye teyu ko ba mu wees woon ci gannaaw ne woon fay da caa war mooy bu wanneew xaaxtandiku ci loo xam ne moo ko tey waaye dana waxoon ne ci gàttal xaaxtandiku ak tifliit ak lu bàyyi ko ci bakkan bi ci xeeti ñend xiit yi moom dafa néexuta wattandiku moo tax du yàq dara ca koor ga mu tey ko ak mu rëccu ko tëyu ko ñooyamoo rekk see boo jàpp loolu wala zubaabin du caagéenu weñ xabarati tariixi ak pëndub yoon wa aw saani al jibsi wala aji liggéeyi palaatar aw daqiixi wala ak wal sunguf su waree weñ sarax ko du wàññi dara ca koor ga su waree di aw ci yoon wi pënd bi di ko solu di jàll wala muy liggéeyee lu am pënd ni ki muy gas suuf mbaa muy moolu yu demee noonu la koy solu di jàll ca pënd ba dara waru ca du yàq dara ca koor ga bu dee liggéey ci palaatar ciment mbaa lu mel ni ciment wala muy liggéey ci wal ci machine yi mbaa wala jumtukaay bu ñuy wale sunguf sa di ko solo di jàll yu mel noonu yépp neexuta moytu yàq ca koor ga dañuy wax ni sax diine day jàpp ndal lool ba bu tolloo ci di bay toolam tool bi su taxawul ci bay ko rekk mu yàqu te ci la yaakaar ab dundam su fekkee ne su wooree du mën a taxaw ca tool ba yoon da koy may rekk mu bañ a woor nekk ci liggéeyu tool ya su loola jàllee nag mu daldi fay koor ga loolu lépp jàpp ndalu diine la waxam satun juróom tu kafaru def na leen kafaara fi xamdi xaaji seenuk tey illaa bi tawilin dara ci taawil xaribin guy aji jege yo zaru kook def na ko gàntal nee na am na juróom yoo xam ne ñooy waral ka dog koor ga war a def alamaan boole ja lu may na nga xam ne dafa taawil maanaam moom dëgër bopp taxul mu def ko dafa jafewoon sañ na ko rek te it am na fu mu tegu mooy daa jàppan ne sañ na ko te am na lu tax mu jàppan ne sañ na ko xam dëgër bopp ak ñeme yàlla taxutoon bu boobaa moom kafaara du ko ca war fi ramadaana ci ramadaan xattu dong te it doog rek ci ramadaan mooy waral kafaara waaye bu doon geneen koor gu war ne ki kooruk sixaar wala koor kafaara rey dafa am koor kafaara sixaar am koor waaye yooyu bu ca dogoon ci tey koy du tax alamaan war ca weeru koor rek mooy dog ci tey ko mooy indi alamaan dixtiyaarin ànd ko coobarewu te it mu coobarewu ko rek waaye bu fekkee dañ ko caa forcé woon ci weeru koor ma ci ramadaan ba mu dog ci tey ko itam du tax alamaan war ko ca taawil jàpp ne mën naa bañ a woor mbaa sañ naa dog bu tegoo ci lu wóor a wóor dañ koy tuddee at tawilu al qaribu kooka fay rekk ko ciy war waaye alamaan du ko ca war su ko tegul nag ci fu wér a wér teg ko ci kaw ak defe rek sabab su woyof woyof moom la ñu tuddee at tawilu al baidu moom fay da ko cay war alamaan it war ko ca at tawilu al qarib te mooy ñàkk woor mbaa dog koor ga mbaa wéy rek di lekk ka naan te nekk ci bëccëgu weeru koor ci kaw defee ne sañ na ko te fam ko teg itam di fu wér fuñ mën a sukkandikoo dañ koy misaale bu juubee ci koor gi mbaa ñu forcé ko ba mu lekk mbaa mu naan mu wéy nag jàll rekk di lekk ka naan ci kaw rekk jàpp ne ndegam koor gi xës na yàqu moom sañ naa wéy di lekk ka naan loolu am na fu wér fu mu ko teg fay rek moo ko cay war kenn du ko ca alamaan ndax hadiis ba dane inna allaha wadaha an ummati alqataa wa nisyaana wa mastukrihu alayhi sama xeet wi buñ juumee mbaa ñu fàtte mbaa ñu forsi leen saa borom du leen ca jàppe dara loolu moo tax kon kooku kenn du ko teg benn alamaan fay rekk moo ko cay war ba tey bu tukki woon ñibbisi fekk booba fajar fenk gut mu defe ne nag sañ naa bañ a woor te xam nga ne ndegam ñibbisi na njëkk fajar di fenk moom waroon naa woor waaye ndegam suñ borom nee na wa man kaana maridan aw xalaa safarin fa iddatun min ayaamin uxar loolu la sukkandikoo nag moom ba tax wóoru ci bis boobu dara du ko ca war lu may fay waaye kenn du ko ci alamaan bu doon tukki it tukki boo xam ne matul doxul wàññi daal jàpp ne rek sañ naa bañ a woor bu daal di bañ a woor ba tey fay rek moo ko cay war ndax taawil boobu taawil bu am fu mu wéeru fuñ ko sës lañ koy jàppee suñu demoon ba bëccëgu fanweer nga xam ne daal bis boobu moo mujj ca koor ga mu xool ci asamaan seeni weer wi daal jàpp ne biig la feeñoon tax mu daal di lekk ka naan dañuy jàpp ne loola fay rekk ko ciy war ndax hadis ba nee na woon suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi bu ngeen ko gisee woor leen bu ngeen ko gisee wori leen kon nag su gisee ci bëccëg bi weer wi ci asamaan si jàpp ne bis boobu bisub kori la dal di wori xëy na juum na rekk ndax weer woom siyén dañ koy moomale guddi gay ñëw dañ ko moomale guddi ga weesu fay rekk ko cay war nag ndax fu wóor lu sës doggam dog kooram ko amee woon janaaba ci guddi gi sanguwul ba gannaaw fajar fenkee rek la door a sangu mu defe ne kon mën naa bañ a woor loola tee ko woor ba tey nee nañu fay rekk koy war waaye kenn du ko alamaan boobu nag xëy na nga defee ne taawil bu sori la ndax amee janaaba ci guddi ga yéex a sangu ba gannaaw fajar fenkee nga door a sangu tax nga daal defee ne rek sañ ngaa bañ a woor day nuru ne taawil bu sori la waaye taawil bu jege la ndax dañoo aaye woon lu mel noonu ba ibnu Abbas ak Abu Hurayra sax dañuy jàpp ne bu wóoroon it koor ga du baax ndegam ba mu amee janaaba sanguwut ba fajar fenk mu door di sangu ibnu Abbas Abu Hurayra dañuy wax ne bu wóoree it koor ga du baax moo tax kon lay sukkandikoo mooy war naa woor waaye nag su jàppee ne wërta wóor ba tee ko wóor it kenn du ko alamaan fay rekk moo koy war ab lim la bu bare bari waaye mën nañ cee tudd bële te bàyyi mooy bu àggoon ci yëg ne fajarkat mi ngi door a fenk fekk nag sexoon na ab tip wala fekk na góoxoon na ab góox wala fekkoon na muy jote ba sawukaay ba ma nga woon ca sawukaayu jigéen ja su dalee di yàbbi la mu sexoon mbaa mu ne roseet sawukaay ba koor ga baax na dara sikku ca nee nañu su jàppee nag ne man kat saa koor du baax ba tax mu daal di yooyu bañ a woor lekk ka naan dañuy jàpp ne kenn du ko alamaan fay rek moo ko ci war ndax loolu ñu bari buñ ko defee dañuy jàpp ne seen koor yàqu na kon xeeti taawil yu mel nii nga xam dëgër bopp ak xotti ormay ramadaan taxu koo def la mu def day jàpp ne war naa fay rek waaye alamaan wóoru ca tawil bu sori nag mooy boo xam ne daanaka daal tegu ko fenn daa gaaw a njortu rek waaye loola moom waru ko woon a defe niki moom gis na jëmmi weer wi mooy gis na terutel ramadaan mu wër ko ne lee weer waa ba mu ko waxee nag gëmuñu ko tax moom mu daal di bañ a woor ndax jàpp ne ndegam wax na ko te gëmuñu ko rek koor waru ko loolu taawil bu amul fenn fu mu sësu la ndagam suñu borom nee na fa man shahida minkum shahra falyasumhu ak suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kon ba mu ko gisee moom woor dong la war a def kon nag bu ko waxee gëmuñu ko tee ko woor day fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci ba tey bu dee jigéen joo xam ne bis sàngam da ca daan gis baax bañ ca àggee nag mu ne tey duma woor ndax xam naa ne sama baax bi muy sama regal bi na ma daan dikkale noonu la muy dikkale tey itam mbaa ko amee woon jëlub tawat boo xam ne da ko baaxoo dikkal ci bis sàngam ñu àgg ci bis ba mu ne tey weeru koor la maanaam noo ngi ci ramadaan waaye du ma woor ndax xam naa ne jël bu ma daan dikkal tey la may dikkal ñaar ñii ku ci nekk da nga fay ba noppi ñu alamaan la bu dee jigéen ji nam jàppe woon ne tey la deretam di ñëw tee ko woor bu gisoon deret ja it du tee mu war a fay ba noppi ñu alamaan ko rawante na nag far nam ko yaakaare woon gisul deret ja kooku ne jël bi tey la ma daan dikkal tee ko woor it bu demoon ba gis jël ba bu dikkal ko nam ko daan dikkale du tee rek mu fay ba noppi ñu alamaan ko kon ñoo ñaar ku ci mën doon daa waral na jàpp woor nag bu demee ba ci biir mu gis lam daan gis mu xam ni ngànt la mu door a bañ a woor ba tey su wooree daldi jëw te ñu wax ne jëw daa mel ne lekk yàpp ka nga jëw mu jàpp ne kon man ndegam jëw naa rek sama koor yàqu na defe ne sañ naa lekk ka naan daldi lekk ka naan day fay ba noppi ñu alamaan ko ndax la mu jortu ba yàq kooram dafa dëgërut la nga weesoon ñu koy tudde bisub sikki sàkk maanaam ñu am ñaar fukki juróom-ñeent ci baraxlu asamaan si lëndëm bis ba ca topp ñu nattabali ba xam ci ramadan wala du ca ku dem ba ca bëccëg ba mu wóor ko ne weer wi feeñ na fekkoon na moom muy lekk ka naan bàyyiwut lekk naan nga xanaa wéy rek ca noona te moo ko tey xam na ne moom ku yëg ne weer wi feeñ na rek danga daal di war a bàyyi lekk ak naan te fay bis boobu moom nag mu tay ko ba noppi nag teewu ko wéy rek di lekk ka naan day fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci farafuhu topp yëkkateem nga anniyata yéene ja bi naxaari ca bëccëg ba saa yu nekkee ci biir koor gi tàmbalee rek fajar jëm jant bi soo diggante bi su fi wàccee yéeneem rek moo xam dane maa yéene woon yéeneetuma mbaa dañ ko wax lu yàqum xelam ci tey bisub koor la am tey du bisub koor tax mu ne wàcc naa saa koor mbaa boog dog na ci wàcc koor gi moom ci xol ba doon te waxu ko ci làmmiñ wi gannaaw ba su xamaatoon ne te ji kat wër na li ci koor gee bokk mu jàll baña lekk baña naan ba jant bi so it du tee mu fay bis booba noppi ñu alamaan ko ndax wacc ga wacc yéene ja ndax julli ak koor ak jàpp loo ci def te àggalagoo soo waccee yéene ji rek la ko defoon yàqu na mel na rek dégg na ne weer wi feeñ na wooroon na ba yàgg mu dégg ne kat dañuy wax rek weer wi feeñut waa Tuuba wóoruñu mu dogu ci daldi bàyyi kooram ndax waa Tuuba wóoruñu gannaaw bi nag ñu xibaar ko ne ko weer wi kat feeñ na waa Tuuba woor nañu mu gëstu ko xam ne wax nañ dëgg kat waa Tuuba woor nañu waaye waccoon na yéene moom ba noppi waccoon na kooram ba noppi benn waxal na ko ci làmmiñam mbaa fasal na ko ca xol ba bis boobu kooram yàqu na du sañ a lekk du sañ a naan da koy fay ba noppi ñu alamaan ko nag boole ci ndax wacc ga wacc yéene ja bu doon ci biir guddi ga nag mu wacc yéene ji ba yàgg mu jëlaat ko laata fajar di fenk dara nekku ca li fa yàlla waxtu yéene yi moom mooy fi jant bi sooye digganteem ak fajar di fenk sooy naataw li naa suba danaa wooram duma woor li fekk fajar di fenk rek yaa ngi ci sa coobare bu la neexee dogu ca ci koor ga mbaa bàyyi ga waaye nag waaye nag boo xasee dogu ci daay woor suba ba fajar fenk faaw nga wéy ca koor ga doonte sax kooru coobare wala faaw nga wéy ca ndax yéene woon nga ko te xës na tàmbali dagal nag koor ngàtt nga rek la maanaam koor goo coobarew rek la ci guddi gi mën ngay nattawle suba danaa wooram du ma woor suba dana tàngam du tàng li feeg rek fajar di fenk la neexee daal di bàyyi te dara du ca nekk boo yëgee nag ci guddi gi ne nee nañu weeru koor kat suba ci jëkk nga yéene woor soo demee ba yàgg ngay nattable nga xam ne sa yéene jooju dogootoo ci soo yee ca noonu rek déng-déng ba fajar xas fenk jeex na waxtu yéene wa jàll na su la wóoree ne bis boobu ci weeru koor la bokk da ngay bañ a lekk bañ a naan te lu tee nga fay bis boobu aw ak lan wala ak lekk aw shurban wala ak naan xam dan ci ak tey bi famin ci gimiñ ba tey biñ tolloo ci weeru koor mu dog kooram ci lekk mbaa naan te defe ko ci gimiñ bi famin jooju ab sart la ji lekk naan ak gimiñ ca dëgg-dëgg topp bànneex la xotti ormay weeru koor wi la waaye lekk ga mbaa naan nga bu ko jaarale woon ci bakkanam ci misaal jaarale ko ci gimiñ gi fay rek ko ci war waaye alamaan du ko ci war waaye ndegam ñu ngi ci weeru koor wi ñu toll ci waxtu koor wa da tàmbalee fajar jëm jant bi so mu lekk ak gimiñam mbaa mu naan ak gimiñam tey ko boole ci amul benn ngant day fay ba noppi ñu alamaan ko waaye su ko teyoon daal moom jaaral leneen ci lu bokkut ak gimiñ niki lum jaarale ci bëtam mbaa noppam mbaa bakkanam lum ci jaar alamaan du ca war fay rekk moo cay war aw min jimaaxin wala ci ak booloo aw maniyin wala génn man yu xas dan ci ak tey ba tey biñ tolloo ci woor weeru ramadaan mu woor ba noppi nag tey ko daal di joteeg jigéen doon ci sax jigéen ja du doomi aadama ni ki day bahima xar mbaa bëy wala sax bu dee doomi aadama fekk na mu faatu ba àggal lu mu ci mën doon daal ndegam moo ko tey joteeg moom rek te moom mi def jote gi mag la koor ga yàqu na mu war a fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci jigéen ja mu jotee lit bu fekkee ne mag la te kàllafe na boole ca te moo ko coobarewu moom jigéen ja moom it day fay ba noppi fay alamaan boole ca ñoom ñaar nag koo ci xam nañ ko caa forcé rek ca lam def waaye du coobareem fay rek moo ko cay war jëmm ja ko forcé nag moo war a fay alamaan ba ba tey ku woor ba noppi tey ko def luy génn man yu du sax jotee ci sawukaay waaye moo ko tey def luy